dal leen ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yu wér te wóor ak Rafah TV kumpa tàggoon ak yéen. Ar-Rahman allama al-Qur'an xalaqal insaan allamahul bayaan الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان bu ngeen déggee alxuraan ju tedd jooju yi nga xam ni soxna si jàng ko léegi macha allah ngeen xam ni kon alxuraan moom moo ayeeti ci loolu nag xam naa dañuy bañ a guddal ndax am na ñenn si ñi nga xam ni ñoo nekk si jotaay bi dañ si jël ay góor jël ay jigéen ku si nekk am na tomb boo xam ne fas yéene na ko waxtaanee ak yéen. danañ njëkk jox kàddu gi ki nga xam ne mooy ma Massamba Ndaw ñi gën koo siwee si bàcc ndaw di kenn ci ñi nga xam ni ñoo fondé daara ji di kenn si ñi nga xam ne si jëwriñu daara ji la bu ko defee moom danañuy ñëwal si cosaanu daara ji ak tamit naka la daara ji di euh, naka la daara ji doxee ak tamit bis bii nga xam ne moom la ñuy sos di ko séentu te mooy siyaara alxuraan bii ñu amal fas yéene amal ko 7 janvier lan moo ko sabab ba mu tax ñi koy organiser di ko waajal ba mu toll fii tey buñ ci passé tamit danañ si ànd ak sëñ Moustapha Seck mooy tamit di kenn si jëwriñ yi nga xam ne mooy tamit bokk nañ si magi daara ji sos ji ba mu nekkee commencement ba fii ñu toll mooy tamit danañ si ñëw si ay kàddu comme ni ko sëñ Samba Samba Ndaw defee mooy tamit incha allah. ginnaaw loolu tamit dañ dañuy ànd ak euh, sëñ euh, Baye Talla Ndaw mooy tamit di kenn si waa dëkk Ndor bi mooy ñi nga xam ne dëkk nañu ñoom si koñ bi moom dina ñëw si turu waa koñ bi si kàddu yoo xam ne mooy tamit dana ci leeral lu bëri te gën a soññaaxaat waa koñ bu baax ñu ñu gën cee ànd ak taxawaay buñ ci loolu passé tamit danañ ci ànd ak Serigne Kéba mooy tamit mu ngi suñu dana wax mooy si turu dong yi nga xam ne ñoo féete si biir daara ji ñëw tamit naka lañ war a doxee rawatina buñu àggi si bis ba ñëw tamit naka lañu war a mën a doxee si bis ba ba bis bi mën a yegg si jàmm ku ne ndaje tamit sa xel dem si ay soxna mooy jigéen ñi ñoo di ñu yàgg am taxawaay lool di bi daara ji sosoo ba léegi loolu tamit danañ si ànd ak ñaar ba ñetti incha allah bu ko temps bi mayee muy soxna Waré saw mooy danañ si ñëw incha allah soxna yi tamit maanaam danañ si ñëw ñooy tamit ak seen njàmbaar ak yàgg taxawu daare ji ñoo tamit kenn dana wax si dëkk ndoori mooy soxna Waré saw incha allah kon xam naa ñi tënk maanaam kàddu yi foofu jox sëriñ Massamba Ndaw mi nga xam ni moo ñu ubbi jotaay bi ci wàllu maam cosaanu daara ji ak cosaanu bis bi ak naka lañu koy doxalee ba kere mu yegg fii mu yegg ni incha allah. bu ko defee itam dañuy ñëw rek ci cosaan li nga xamante ni moom mooy cosaanu barab bi li nga xamante ni moo tax jëmm ji nga xamante ni mooy abu Aboubacar Sall ñu wax na rek yitteem ak yéeneem. ak bëgg-bëggam ci doomu aadama yi mooy dundal alquranul karim dundal xam-xam sol ko ci dënnub doomi jullit ñi daara ji nag dafa am cosaan euh, daara ji ñu ngi ko sos fii ci Touba 2006 ma nga commencé ca Ndaamaatu bi daara ji di door ku ne xam na ne sax barab ba nga xam ne moom la Cheikh Aboubacar sàll mii nekkoon ànd koog donga yi nga xamante ni tey ñoom ñoo nekk ci daara jii ñenn ñi ñoo ngi fi di sàkku xam-xam ba léegi. ñenn ñi yàlla dogal na jóge nañ ci barab bi dem ci yeneen yitte jamono jooja daara ji mi ngi commencé ndaamaatu 2006 yàlla dogal ñu nekk fa te fa ñu nekkoon booba sunu borom daa dogal barab la woon boo xam ne dañ koo abaloon daara ji ndax ngir wane pas-pas ak yitte Cheikh Aboubacar Sall ak itam xam le ne moom amut lenn loo xam ne yitteel na ko. ci àdduna lu dul liggéey ngir jëmmi yàlla sunu borom tabaraka wa taala comme ñu koy faral di waxee waxtu wu nekk maanaam ziyaarab alquran la boo xam ne donga yi nekkoon ci barab bii doon fi jàng alquran doon fi sàkku xam-xam ba yàlla dogal seenub liggéey mat ba kenn ku ci nekk dellu ci ay yitteem ñooñu ñoo retourné waat ñëwaat sàkku bés boo xam ne dañ koy njukkalee alquranul karim kenn ku ci nekk ci ñoom am na yëg-yëgu ne am na ab cër bu nekk ci moom boo xam ne alquran a ko ko jox looloo waral nag kon donga yëpp daal di maase retourné waat dellusiwaat ci barab bii nga xam ne la nekk ci ñoom ci njub la nekk ci ñoom ci cër la nekk ci ñoom ci lu baax ci barab bii lañ ko rootee kon ñu ne nañ dajee créer bés boo xam ne dañ koy tuddee siyaarab alquranul karim delloo ci njukkal alquran delloo ci njukkal jëmm jii di Cheikh Aboubacar Sall kon loolu mooy cosaanu bés bi kon bés bi nag maanaam ñu ngi ciy woo mboolem fu jullit mën a nekk di wax ashhadu an laa ilaha ñu ngi lay woo ci bés bii te xam ne lépp lu waay di woote ay nit di ca daje di ko màggal alquran moo ci gën a yey kon ñu ngi tàllal loxo mboolem fu jullit mën a nekk ci àdduna góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi lay woo ci bés bii di sàkku sa teewaay ci maanaam daara jii di Mahadu Rasul ngir màggal bés bii di bésub alquranul karim ñu tuddee ko ziyaara alquran kon daal cosaanu bés bi mooy bés la boo xam ne donga yi ñoom ñoo ko organiser maanaam ngir dajee fi dundal alquranul karim ngir sàkku yiw ngir sàkku barke waaye delloo njukkalit Cheikh Aboubacar Sall kon daal jëmmi cosaanu bés bi moom loolu rek si simple loolu moo ko sabab. bismillah suñu programme ñun dongee fas yéene nañ euh, xoo bépp taalibe boo xam ne moo ngi si biir dëkk bi wala biir réew mi ñu ngi lay wax suñu bis bi la 7 janvier. incha allah bi fas yéene nañ fi bu ñu xëyee jàng alquranul karim euh, xam nañ fi it ay. programme yoo xam ne bëgg nañ mu doo fi ba ñu ngi bëgg képp koo xam ne xam-xam njor na la nga jëm koy teewee ci bokk na si ay ixtibaar yoo xam ne amoon na si biir euh, kër gi ñu dem ba nga xamante léegi ixtibaar yi moom jeex nañu war a xam ay premier deuxième troisième ci wàllu xam ne loolu fas yéene nañ maam si bis bi am na it ay mbokk taalibe yoo xam ne def nañ si ay abiyaat yoo xam ne euh, bëgg nañ it mu jàll si bis bi incha allah rabbi di woo mboolem jullit foo mën a nekk rek ñu ñaan la nga ñëw teewe bis boobu noonu ngir déglu xam-xam ngir déglu euh, alquran ndax loolu dong mooy sabab bis bi su ko defee nag li euh, nga xamante ni moom mooy mooy mooy mooy biddaa ji li si nekk mooy ñaar kese la mooy jàng ak jub comme ni ko sëñ bi di faral di waxee rek ndax dafa benn kilifa ñu koy wax alaaji Axmaan radiallahu taala anhu dafa wax ne wa man yumsik bi huddal quraani fa hadyuhu xaqun la dar rahmaani képp koo xamante ni maanaam jàpp ko si ñu bokk alquran rek kooku moo yoru njub dëgg dëgg dëgg fa yàlla daal wax ñaari mbir yoo xam ne moom la suñu mbir doxee mooy jàng ak jub ne wa addibil atfaala bil quraani qiraatan tanal sana ridwaani deel waxaat beneen bay ne wa addibi subbaana bil furqaani taqalluxan yëngaloo la dal aqraan yi kon ñaari yooyu noonu gis nga ko oh, moom la suñu doxee moo tax benn beneen mbokk taalibe wax na ci eh, sëriñ bi benn olofal di junj ne wasaarion ilal lasi umuruhu mufaddalun mukarramun muasamun axlaaqu mubajjalun daal ni ko ne rasulullahi xasal na la sëriñ tubaa dolli na la sëriñ Ousmane gërëm nolo foo mën a jaar làq ngëréel yaay fopp ko yées ku mel ni man defar ko tey ba muy jagal te doo ko dóor yow doo ko xas sëriñ yaa bëri ngëneel dëggug dëggug dëgg yow yaay borom dara duñu ba changé la jubag jubal yow mooy su róol wallaay xista ay fowol maanaam làq nga ay ngëréel kon sëñ bi loolu mooy mbiram ci daara ji teg nit ñi si yoonu yàlla ak si yoonu siraatal mustaqiim bis bi nag ñu si woo mboolem jullit mboolem taalib ak fa mën a nekk rek ñu la taalal loxo nga jàppale ñu si te euh, sa teewaay ak euh, lépp rek ngir teel te jëm yàlla rek tax. bis bi suñu bis la du bisu kenn danaa ci profité sax su ma sañoon suñu ko mënoon këroo kër gu fi nekk ci diggante koñ bi mu bokk boroom kër yi kilifa yi soxna yi. ñu sàkk bis boo xam ne dañuy daje di ko waajal bis bii ndax bis bu rafetkat bisum ngëneel bisum alxuraanu karim jar na waaj ren ba déwén ay déwén jéeg kon maa ngi sàkk bu ñu fi jógee ñu seet bis bu ñu mën a daje waxtaane ko di sàkk bis boo xam ne dañ koy daje di ko waxtaane di ko waajale bis bii ndax bis bi suñu bis la ñun waa Sixaw gi maa ngi woo waa Sixaw gi nag ak dëkk bi yëpp yëpp yëpp ak àdduna bi yëpp képp koo xam ne ko alxuraanu karim ñor na la soo ko mënee ak foo nekk nga teew ci bis bi ndax bis bi kat suñu bis la ñun te kat li naan kuy wàlleyaan seen kër dañoo tëggul kon nun bis bi suñu bis la ñun waa Sixaw gi dañ ko war a jéem a xam nag li tax ñu jéem koo xam nag mooy booloo nekk benn di jógandoo di toogandoo sunu aylee ñu xam ne ñun ñoo ayle daara yi moomu ko ñun waa koñ bi ñoo ko moom ndax kenn ku ci ne xam na bi ñu fiy nekk kenn ku ci ne sa kër dara waru ko lenn niwu fi dañu ne woon copp ku ba ñu jox sunuy suñuy borno léegi alhamdulilah ñu ngi sant yàlla xiifuñu maruñu def ñu ñu ngi sant yàlla sant Serigne Touba Cheikh di woo jigéen ñi rek sama mbokki jigéen ñi rek di leen soññi ci cant gi ndax lépp nun noo ko moom lépp nu na lu dëng nu na lu jub nu na lu jubadi nu na ndokk mi ni fi yàlla indi lee sëñ Sall ndax bëgg nañu yiir nañu ñu jël suñu gone yu ndaw teg ci loxoom te dóoruñu xasuñu saagawuñu lu def turu yàlla ci seeni dën kon yàlla na fi yàgg te ndax man de daara ji sama yëf la te awma ku ma ko mën a bokkal fi ne nii moom jàpp ma ne bokk naa ko kenn ndax dama ci dugg ba bëgg ci bëgg goo xamante ne aw ma ci sago aw ma ci ngor sama mbokk yi sax dañ may wax naan ma yow daara ji xanaa dañ laa seexal may leen waaw ndax ñooy jot sama bakkan suñ Babacar aw ma fayam lépp lu may jéem ci moom maa ngi ñaan yàlla suñ borom kàttalan ma dooleen ma ba ma man ko ndax sama doom jéeli bàyyi Modou Top daf fee jànge mosuñoo laaj ñaar dërëm mosu koo dóor mosu koo xas mu jànge fi ba mokkal alxuraan jàng fi ba mokkal xam macha allah bam fee mu nekk di jàngale moom moo ko fa yóbbu kon sëñ bi aw fayam xanaa di ko ñaanal ak ndongo yi mu bokkal daara ji ñu am pësteef lañ ñu jàmbaare ñu dundal alxuraan alxuraan moom ku koy dundal ku ne rek suñ borom dina la defal jàmm jàpp naa ko man. maa ngi woo sama mbokk jigéen ñi ñëpp ñu ma ko bokkal dama ko ne soxna Ndeye Samb soxna Ndeye Gaye soxna Issa Fall sama waa koñ daal si xaw gi maa ngi leen di woo di woo sama mbokki bopp. wax na maa Awa Mbacke ñoom jiital naa leen si woote bi soxna Ndiob Sylla bàyyiwuma kenn ndax fu ma nekk ñu ngi ci sama ginnaaw jàppale ma lool nag waaw dama am benn bis boo xam ne maa ngi ko jagleel daal daara ji pour ay ndog yoo xam ne amul solo waaye dama bëgg ñu fasaaleel ma ci ñaanal ma ba ma dem ba yeew ay gileem barki alxuraan ndax yéene naa ko te maa ngi ci kawam barki Serigne Touba aw ma leneen lu ma mën a wax dama sama xol daa sedd maa ngi koy ñaanal daal fi mu bëgg àgg yàlla na ko fi yàlla eggale. moom sëñ Babacar saal ak ñi bokkal liggéey bi. waaw mbokk yi kon bu ngeen déggee kàddu yooyu ngeen xam ne kon woote baa noonu béy ko ci kilifa yi tedd yi ak soxna yi tedd di kon nag ñu ngi ci woo bépp jullit rek ak fu mën a féetee ci biir réew mi ak biti réew mu mel ni kon bis bi li waroon mooy kenn ku ci nekk ñëw ba sa kër yëgal la ko waaye nag ak technologie nam ni nga xam ne avancé na moo tax ba tey tamit ñu ngi ci woote yi nii képp ku ko dégg rek jàppal ne mooy sa woote bis bi nag bu ñu ci yegg incha allah mu ngi war a démarrer 8 heures ba 18 heures incha allah suba gi dina am njàngam alquran buñ demee tamit ma ba ba cëg gi ay côté 15 heures dina am tamit ay conférence yoo xam ne wàllu waxtaanu diinal la si ñaari thèmes yu am solo yoo xam ne dana fa jàll bi si njëkk sëriñ sàmm Ndaw moo ko fay jàllale si wàllu al infaq fi sabilillah ñaareel bi benn soxna boo xam ne mu ngi woon si daara ji mooy soxna Bintaka mooy tamit dana wax si jigéen ak xam-xam mooy al mar'a wala helmu wala al helmu wala mar'a su boobaa mooy tamit ngi sàkku mbokk yëpp mën koy teewe buñu demee ba 18 heures nag sëñ bi dal di ñaan ñaanlanteeg mbokk yi ñu dem ba déwénati incha allah kon fépp fu waay mën a nekk rek da dégg si nu kàddu rek muy si biir réew mi biti réew ñu ngi lay woo bu baax rawatina maa wala ree sëñ bi nekk si dëkk bi te sant Mbàkke ñëw ñu ngi leen xaasal mooy tamit ak woote ak dong yi nga xam jaaroon nañ ba daara ja ba génn fi ñu ngi leen woo ñu nekk si biir réew bi ti réew yëpp rek ñu ngi leen woo ak fu ñu mën a nekk rek ñu ngi ñaan seen kàddu yi fekk leen si jàmm te ñu a teewee bis bi bis bi nag ñu ngi ko jàpp la 7 janvier incha allah di war a tombeeg maanaam dimanche di ñaan ñun ñëpp yàlla nañ ci fekkee ak wér wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. dal leen ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yu wér te wóor ak Rafah TV kumpa tàggoon ak yéen.